ay avocats yi jekk say ne monsieur le monsieur le juge bu nous vous nous permettez ay pièces li ñuy wax ay pièces jointes audience bi mi ngi daw ñu jekk say génn seen première arme mooy dossier médical bi la première preuve scientifique mooy dossier médical waaw ni wu seen biir ñëw boole ko si dossier bi wax ñoom juge yi ñu déyante xool mais juge dara léew ñu déyante seen biir audience bi audience bi daw waaye yow soxna Adji Sarr waaye yow bi nga jógee foofu yow kan moo la yóbbu ci docteur bi ak ah, nan nga def jamono jooju couvre-feu bi nan nga def ba ñu yóbbu la nan nga da nga xamoon docteur bi déedéet docteur bi xaw ma piège yaa ngi commencé ay saar yow da nga xamoon docteur bi wala da nga mës dégg ay biram noonu la ñuy waxee ni may waxee da nga mës a xaw ma ko ku la fa kan moo la fa bi nga demee gendarmerie ñu ne la docteur yaa tànn docteur bi wala dafa am ku ne ne mu ne Ahmed Sidi moo ma ne kaay déjà piège déjà wadd na juge yi bind thèse complot mi ngi dugg ci audience bi juge bind ñu laaj laaj laaj laaj waaye ba nga demee si si docteur bi ah aji yow docteur bi de def la xool docteur bi la xoolee ah nee na yow doo jànq de nga baal ma nee doo loo si xalaat jànq nga wala doo jànq ah déedéet <laughs> bi ma nekkee xale benn waaye violé woon na ma ay mool doon nañ ma tëdd suñu kër si laa ñàkke woon sama ndaw sama yaay de mu doon kii Dakar waaw ah waa docteur bi nee na yow da nga ne Ousmane Sonko démb la la te yow bi moom certificat médical bi nee na yow ah yow yow yow kenn kiiwu la kenn kenn kenn gis nañ yegg sa kaw mat na ñaari fan ah bi loolu la wax léegi léegi foofu da ngay taxaw di nga di nga di nga leeral par la force tàncu ba si seen dossier médical bi rek fa lañ ne fa ne léegi pour mu résumer rek. Hmm. léegi ñu ne les témoins kaay leen dañ leen di isolé na le ñu ne Ndeye xari Ndiaye kay taxaw moom dañ koy àtte ñu woo capitaine Touré woo seede yëpp ñoom li ñu xam li ñu gis li ñu dégg juge bi da leen di laaj ne leen yëkkatil sa loxo nga capitaine Touré waat mu ne ko waxal li nga xam capitaine Touré ne ah xale bi de bi mu ñëwee si man daf ma ne tonton mbaa du si am problème mbaa ni juge ñi ngi bind. audience bee ngi daw bu ñu laajee mooy ba pare avocat yi dóoraat seen deuxième missile mooy audio yi ah président si vous permettez jël seen parole est-ce que tribunal moom dañ déglu audio yi bi ne non juge bi ne non amul problème ñu jox juge yi juge yi déglu avocat Adji Sarr ñuy dëpp aji Sarr waaye yow Adji Sarr yow lii nga wax fii lépp wax ju rëy ji yow avocat yi ñoo koy ërtal ah avocat yow yow hmm. yow xotti nga orma jigéen ah, avocat Sonko waaw ñoo koy wax yooyu nekk lii loo si xalaat mu ne nii nii naa juge ñoom ñu ngi def maître El Hadj Diouf tamit day ñëw laaj Sonko yow yow yow yow yaa tax kenn bëggatul góor yow nii yow ne laaj Sonko sonk tontu audience bi di daw di daw di daw di daw ñu ne pause audience bi di daw di daw di daw di daw di daw ñu ne pause léegi. Adji Sarr moom li mu continue li mu wax début bi ba fi ñu toll ba jour procès moom am na ay preuve yoo xam ne génn na yoo xam ne setal na kii di Ousmane Sonko si viol mais aji Sarr ah mais dafa yomb rek dafa yomb de kon de Sénégal suba jigéen ju neex nga yeewu ne Ibrahima Sall moomu violé sans certificat médical ñu. ñoom ñu ne am na lu ñu yor. ah foofu lay waxee ak yow maanaam loolu mënu bu doon génne. man droit laa lay wax jugement laa lay wax enquête loolu buñ ko yoroon génne na bu yàgg kon Ousmane Sonko du dem élection li ma la wóor laa ko teg buñ ko yoroon génn na bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg kan mooy nangu di violer nit ay fital ñu lay caméra wala non ndax Ousmane ndax xel rek nangu na Ousmane Sonko di séq ak Adji Sarr maanaam nit taxaw di ko caméra ndax Ousmane Sonko waye dee na noonu waye dee na fu muy ñëw di xool xanaa Ousmane Sonko booy Dakar dina xool sax ndax fii am na ay caméra ni kan moo leen caméra loolu mooy xanaa Adji Sarr tamit xanaa Ousmane Sonko du ko violé moom Adji Sarr ne day téye téléphone am si waat Ousmane Sonko di ko xool mu déjà laaj dañ ko koy laaj nan la la doon caméra fital yi nan la ko téye kon dama xam ne Ousmane Sonko moo gën ay Sénégal yow nga xam ne góor ñi bu ñuy téye seen soxna sax dañuy am fu ñu jëfandiku pour am doole. Hmm. yow nga téye ñaari fital di violé jigéen nga téye ay fital sa loxo. góor bu nekk xam nañ ne sa sàkkara da nga koy may doole pour mu yegg fi nga bëgg mu yegg léegi yow nga yor ñaari fital xale bu jigéen bi taxaw nga kay violer ñaari ñaar nii nga def nga xam ne am na possibilité daw kon wax bu feebaree rek nopp yi koy réew mi moo bëri ay borom xam hmm. ay saa demee chambre criminelle. oui moom wax avocat xam ne lépp dëgg la. xam lépp dëgg la ci li ñu jot expliqué wala lu ko gën a. ci li ma leen jot résumé rek ñu jàpp foofu man di audience bu tàng. te metti te ba mujjantal ga laa juge bay tëj juge bii di si table bi ne damay tëj Ousmane Sonko hmm. xanaa boobu ma ko ma baat xanaa lu kenn xaarul woon génn si audience bi. lu kenn xaarul woon lu uuteeg viol. déedéet maanaam leneen preuve. comme li beneen preuve waaw. bu uuteeg certificat médical. non comprendre maanaam. Ah, xanaa xanaa mu mu indi daal preuve li li mu doon wax ne yor na ko. Hmm. mu indi daal loo xam ne dina naxasal xelu sénégalais. ñu ñu ñu ñu ñu tëj si Ousmane Sonko benn weer wala yooy mu mu indi daal loo xam ne daal dina juge bi daal dina si xaw a mën a sukkandiku mais preuve mënatu ko génn te Adji Sarr mënul génn dara si jour audience c'est li fii laa ko waxee bés bu amee man du ma ñëwati sa télé bi bés bu ko Adji Sarr génnee. bu génnee preuve. ñu ñii ñoo man dama xam lu bëri ci mbir mi Adji maa njëkk yore première vidéo Adji Sarr maa ko njëkk a yor marché HLM mu dugg ci benn boutique. ànd ak benn euh, nit ku ko doon bëgg muy jënd ay sañse musique bi di jole ay saar bu tay la fecc te li may wax jël naa si seede Pape Ndiaye bu Walfadjri ba ma ko indee sax vidéo bi nekk Pape njaay mu teg ko émission balance Pape Ndiaye dañu mu déedéet par boobu affaire bi mi ngi door a bees Pape Ndiaye ma non waaye patron bi nee nañ non buñ ko tegagul affaire day bees première vidéo bu kenn yorul woon bu kenn yorul woon vidéo ki ma ko yónnee ab mool la boo xam ne kër yi ñu aji saar ñoom aji saar seen kër ay mool lañ fa daan nekk te kooku nee na ma aji saar daf ko ameel cent mille francs bi ñuy mujjee gisante moom bi mu gisee may live man si TikTok si la laajtee ba xam fu ma dëkk mu ñëw foofu waaye ne ma yow yaay diw mu ne waaw mu ne dama lay seetaan wal faje mu ne ma aji saar ba muy mujjee gisante ak ab mool laa mool dama doon gorog moom lebaloon ko cent mille pour mu ne day parfum ak yooyu dama bëgg mu fay ma sama xaalis ma ne ko man de wax sa dëgg yàlla xamuma fu Adji Sarr nekk te guddi yooyu effectivement xamuma woon fu Adji Sarr nekk après ñu garder contact waa jooju moo ma wan vidéo boobu noonu ma ñëw wan Pape Ndiaye vidéo boobu la coow li di door a bees vidéo buñ ko tegoon wal fajiri wal fajiri dina am exclusivité bu garaaw Adji Sarr mu ngi nekk ci biir boutique bi nii di di jënd ay yërëm pour wala la jigéen ju yàgg bëgg àdduna la te dinaa laaj Pape Ndiaye ndax mi ngi jënd vidéo boobu ba léegi dinaa ko ko laaj si moom laa ko bàyyi woon mu jënd ko dinaa laaj ndax doy na kon ay fen ay wax yu oyof. loolu rek nga ci xam wala am na leneen loo ci xamit non chambre criminelle kenn mënu fa tëj nit ci ay. léegi da ànd ci mu doon audience boo xam te dañ koy retransmettre en direct pour Sénégal yëpp xam. wala da nga ànd ci Iba Bari Camara mi jàpp ni. audience euh, huis clos la war a audience tey jii bu demoon ba audience di am kenn ñun droit de l'homme yi sax que dinañ nangu mu nekk wii clos parce que fa nekk audience boo xam ne dafay leer nañ ci bëtu adduna am na juge bi nga xam ne moo ne ci digg bi xam ne dernière décision moom la revenir xam nga booy tëj nit tamit da nga koy da nga naan fii laa sukkandiku juge bi xëy na dina viser juge bi mu ëpp pouvoir ma Maham Diallo mu ëpp pouvoir procureur mu ëpp pouvoir ministre bi juge boobu kay àtte. Hmm. juge boobu mën na changer carte gi yëpp mën na ñëw ba ojaat mu ne Ousmane Sonko demal li ñu la doon àttee defoo dafa bëri pouvoir le magistrat du siège bii di toog. te jot nañ ko désigner déjà. yàgg na Amath Sy su ma nekkoon na tënk ci li ma dégg mais est-ce moom la.